moom la am intérêt pour génn ka taaloon otoom dem fële ca Sweet Beauté ka tëddoon këram di nelaw ci guddi gi bu amee ku ñuy baal kay ka taaloon otoom génn lañuy baal ndax sama maam nee na ma réer tëdd mooy wallu reer doxi gis nga ña reeroon ca guddi ga tëddi ñoo wallu usmaan Ousmane ko ma doxi woon mooy la jeunesse ñi ci bari dañoo tëddi woon mais Ousmane ma génnoon guddi ndaw ñoo ñu demoon tëddi nelaw ñoo jug wallu ji ko moo tax waxu mag du fanaan àll. gis nga seen yii ñuy def la ñu war a teg ci suuf. yow la xew d'accord nga pour ñu abroger dem d'amnistie bi. loolu man dama voté bi sax laa àndul. te bi ñuy am ne si benn gendarme duggul tribunal duggul duggul euh, fële assemblée keroog bañ koy voté ñoo gën a yaru xaru yar ñëpp ñoom député yi nga daan gis ñu buddi micro. lu tax lu tax ñoo gënoon a yaru gën a civilisé. lu tax ah parce que da leen arrangé ndax seen waaye daa war a génn seen yàlla ju ndaw ji daa waroon a génn ndax temps kaso bi metti na grève de la faim na tëdd na. feebar na malaise malaise loolu ni ko sëñ Moustapha ah, waxee. xam-xam lu na lu ne dugg na ci. est-ce que est-ce que. Macky Sall la ko dugal ci waxtaan ak ñoom ba juboo ñoom ñoo ne waxtaan nañ koy tënk nañ ba juboo Macky dugal loi bi bu juboo wutoon Macky du ko dugal Macky amutoon benn intérêt ci loi si bi nag pour mu wax loolu leer amu ci woon benn intérêt. ah bon la ci am mu ngi kër tëdd këram mare ma ngi koy defal ay boissons muy lekk di naan di tëdd ñee ña nga prison ba kee ma ngay grève de la faim di xam-xamlu sëñ nee na bu ñëwee mu xam kooku sonn na jomaay sax moom amul lu ko waaye waxal wax dëgg yàlla guerrier la moom nañ waxante dëgg onkuwul tëddul pavillon dafa dem dund ko ngoram il a le mérite waaye kii hôpital tëdd nelaw xëm-xëm lu kiris kiris lu malees lu ne dugg na ci kooku nag moo gënoon soxla génn yéen tamit xam nga mbir mi dañ koy analyser lu lu jaar yoon gis nga man fii laa toogoon wax ko député yu bees ak député yu màggate ci yam loi bii duñ ko laal parce que Mimi Touré ma dégg ñu naan d'accord mais buñ ko laalee waa Pastef ci kaso bi lañ jëmaat de. est-ce xam nga ni Ousseyn mën naa la wax lu gën a. est-ce que xam nga ni buñ abrogé woon loi bi tey buñ ko dindi woon tey. juge d'instruction ma xam Diallo mën na décerner mandat d'arrêt automatiquement ñu jëli Ousmane Sonko dugalaatal ko ci kaso bi. parce que <laughs> parce que instruction bi jeexagul dossier bi day beesaat tàq automatiquement boo yi ngeen di gis ñoom Azura boo yi di cëppi cëppi yépp dañ leen di jëlaat bu dajalewaat. gurgur ne waat sarax ci kaso bi instruction yi continuer parce que eh. jeexagul. buuku léegi ko. amagul mais aussi crime de sang yi fi amul. lépp laa la wax ma ne. ñoom lépp dama ne la lépp laa la wax. juge bi day continuer instruction. di hmm. dérouler. Hmm. ba dossier yi pare ñi mu war a am ne ñi mu war a non lieu mu defal leen non lieu ñi war a renvoyé pour ñu àtte leen mu renvoyer leen jël dossier bi jébbal procureur. boobaa nag bu ñu instruire ba mu jeex ñu ne Ousmane Sonko deful dara non lieu boobu kenn mënu koo topp. bu ñu nee def na dara nag àtte ji fala budda dañ koy àtte ji. d'accord Bassirou Diomaye fay nag liiraguma ci constitution foo xam ne mën nañ ne dañuy révoquer président moom mën naa ni muccagun na pour loi amnistie si moom muccagun na ndax man xamaguma comme man duma constitutionnaliste munu ma ne tel article nee na nañ ko révoquer waaye Ousmane mii moom amul dara lu ko tënk mhm. c'est-à-dire que bu ñu dindee loi bi moom affaire yi beesa tàq Ousmane prison ñoom ñii ngay gis ñi génnoon ñëpp ñoom ami jaag ñoo ñëpp dañ leen di delloo. <laughs> instruction yi continué te man ci loolu laa ànd sax te man billaa wala loolu laa bëgg. ñu dindi am amnistie bi delloo leen ci prison bi. Mm. instruire ba mu jeex ku deful dara ñu xam ne defoo ku def ñu àtte la Sénégal xam li mu ñàkk ñun li ñu perte ñu xam kan moo tax ñu perte ko te mënuñu ko dabu ji de plus de soixante et quelques bakkan ay xale yoo xam ne xamoo woon lan lañ war a doone ñu ñu rey leen ci maali foro loolu kum naqariwul doo nit. d'accord te kan moo ko sooke mortel combat dem foo wër dem rek. d'accord dinañ ci kilifa gu ma a téye tànkam. Ah. baaxul. ñàkk sa tànk rek moo indi li yëpp. d'accord dina ñëw ci euh, ci Mimi bi xam naa euh, Bilia boo amee loo si dolli rek ñu njëkkanteeg temps bi dem ci Mimi Touré bi nga xam ne démb dafa doon woote wala ci siège am ci Grand Yoff. Mm-hmm. laataa loolu dafa am looy dolli ci ci affaire Fulbert euh, Sambou. ah nañ mi ngi ci loxoy yoon nañ bàyyi rek ak yoon. Mm-hmm. waaye war nañoo mën a indil ñu ay leeral. Mm-hmm. ci Fulbert war ñoo indil leeral. Mhm. Euh, ci dijjee ndax seen i waaw seen i njaboot a ngi toog te metti na même bu dul si ñoom um, si côté boobu rek ñu bëri si manifestation yi am na ñu si ñàkk seen bakkan ñoo xamante ne euh, seen i njaboot waa seen i njaboot ñoo ngi laajte Ibrahima rek rek waaw ñoo ngi laajte ñan ñoo mhm. leen def lu ñaaw tif boobu noonu ndax tiire ay nit ci seen kaw mhm. te ba tey mënuñoo ñan mënuñoo xam ñan ñooy responsable yi ba teg leen ay daan. kon mm-hmm. nañ bàyyi lépp ci loxo yoon waaye loi d'amnistie bi moom war nañ ko abrogé ndax Ouzin. Mm-hmm. ay bakkan warul tëddee noonu ñu ne nañ fee yooyu yëpp raxas ko ba mu set. Mm-hmm. du mujjee fenn am na ñoo xamante ne seen i papa ak seen i yaay baalewuñ am na ñoo xam seen i jabar baale wuñ am na ñoo xam seen i njaboot baalewuñ am na ñoo xam ay soutien de famille la woon ñu ñàkk seen bakkan eh, ci lu bëree bëri loo xamante ne ba tey jii nii mënuñoo xam ñan ñooy responsable loolu na war nañ cee def benn enquête bu yaa boo xamante ni comme ni ko bint di bu yaa bi àbb naa la ko mm-hmm. war nañ cee def benn enquête bu yaatu boo xamante ni war nañu mën a xam ñan ñoo def ñaawteef yooyu ñu teg leen ay daan Mm-hmm. mais wàllum Fulbert wàllum euh, Didier mm-hmm. euh, seen i njaboot seen i xarit ñëpp ñu ngi ànd ak ñoom ndax métit la ndax yaa ngi koy wax léegi am na si ko xam ne Didier la wala Didier Baye waaw soxnaam soxnaam moo génne métit am na ñoo xam métit da leen di day nekk ci ñoom ba ni ñuy génnee àdduna ndax tey jii nii sa jëkkër xamoo ba tey ci lan la ne xamoo dafa lab comme Fulbert sax wax nañu ni dafa lab mais ci yan anam la labee waaye et puis d'ailleurs Fulbert ba léegi euh, ci li ñu li ñu li ñu wax ci ñu sukkandikoo ci famille Fulbert ba léegi ñoom ñu corps bi parce que voilà dañ leen wax ñi nekk corps bi dafa ko olof di waxee dafa daggatoo daal maanaam ñoom foto lañ leen woon photo seen borom photo borom këru ki nga xamante ni moom mooy Fulbert bi mu ñëwee hôpital dañu ko wan photo bi su la daal di gedd dem euh, ba nii seen famille jotuñu corps bi pour daal di koy dëjal correctement comme chrétiens yi ni ñu koy defee bokk na d'ailleurs ci lu leen gën a metti bi ñu sukkandikoo ci ami euh, ami intime nga xamante ni moom mooy Fulbert Samb di hmm. Abba hmm. alors euh, bu ñu jigéen ci ma ma waaw da ci teg lu garaaw hmm. dañ ñoom Fulbert dañoo dañoo yoroon ay information yoo xam dañ ko waroon a joxe Ousmane Sonko joxe Ousmane Sonko lool gis nga gis nga lu garaaw moo ne ma Ibrahima Sall gis nga bu ñu ko jàppul wala ñu collègue gémmiñam gi dina fi wax lu taalub réew li affaire militaire kii lu garaaw nee na même corps boobu dañ cee def produit boo xam ne kenn mënu ko autopsie waa ji buñ kolewul gémmiñam wala procureur ubbi ci moom enquête ku mu woolu nanga nga bañ gis nga mbirum Fulbert ku ku ci procureur woolu na nga lànk na wo kii ne xam na ko mu ngi nii na ko woolu te gis naa nag acte bu ñaaw waa Pastef di def donte sax ñoom ci lu ñaaw lañ dëkk mooy nga ne ay nit dañoo dee nga ne da ngay def grand théâtre pour sargal leen ngay fecc di tëgg di way affiché seen photo nii jëf ju ñaaw ju bon a ngi noonu waaye nag yéen ñi nga xam seen i mbokk a yéen ñi dee ñàkk seeni doom na ngeen xam ne waa Pastef moom dañ leen di mbëlle ndax boo affiché photo nit ku dee amoo looy def woo say musicien ñuy fecc ak tëpp di dal jëf ju ñaaw a ngi noonu jëf ju ñaaw ju bon man nag waa Pastef nag man ci lu leen ci bon ci lu bon laa leen. d'accord xamu leen ci lu euh, baax ñu avancer un peu. naa sonal nga waa Pastef ak. da nga cee si Pastef yenn ci Pastef. fanaan ci Pastef. ci nga bokk wala. waaw ah, waaye sonal nga waa Pastef. man su ma bokkee Pastef su ma bokkoo Pastef. yow laa ko war a dinaa la fouillé sa carte bi moom. dinaa xool yaa ngi carte wala wala wala yow. waaw am benn da leen di takkal sër di moo tax ah mais leen di jàppale de comme yow ni ñu la mayee ngay wax xalaat moom noonu lañ ko mayee muy wax. da leen di jàppale ki ngay waxul xalaatam da leen di jàppale. lu ma wax muy dal sama kaw. <laughs> man de réew mi ma ñor. <laughs> Eh, moom ñoruma de moom nag. Ah. ah peut-être sama waay la moom may xam naa daal <laughs> dooy na waar de. waaye woo kenn yow naa ko diagnostiqué de. loo neex ngay wax. d' bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy euh, Mimi Touré. Mhm. démb ñëwaat na ci diggante bi ak Mansour Faye plainte ba. Mhm. ñëwaat na ci 100 jours yi ñëwaat na ci relation Ousmane Sonko euh, Bassirou Diomaye fay